mais li nga xam si moom la Iran Ndao wax ci waxam bu mujj bii képp koo xam ni aju nga ci ci nekk nga ci sëtoo ci mag ñi àndoon nag si Seydi ma Malick radiyallahu anhu nga noppi ci naqarlu woo ko naqarlu woo ko euh, sa bëgg tarixa tijaan ak sa fonk ko war nañ ko seetaan waaw euh, li ñu dégg nag maanaam du yar du teggin xam nga tey sa papa buy wax ak yow nga ni ko papa li ma mën rek laay def mais kenn def loo mënul kenn def loo mënul mais boo nee maanaam bu nee tiwaawan tiwaawan nen moomu ñu ma mais kenn moomul kenn yàlla moom ñëpp mais tiwaawan moomu ñu ma ñàkk teggin la parce que doo amul kenn ku moom kenn rawatina nga utiliser baat boo xam ne si safalatu naasi wa araziluhum ñoo koy jëfandikoo naan ganaaru kenn nenu ma mais buñ xoolee buñ xoolee xaqiqa bi wax nañ dëgg parce que Tiwaawan duñ ay ganaar bay nen bu fekkee xaqiqa bi bu dee majaas nga ci jublu nag mi mooy kon maanaam li ma am jógewul ci kenn parce que nag ganaar mooy nen tegtal muy ganaar ganaar googu dem ba mat nekk eh, daal di nen nen boobu tegtal dem ba nekk mag mu daal di nekk bu fekkente ne loolu la ci jublu kooku du dëgg kon parce que eh, Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu moo tasaare tarixa bi jox ko sa maam jël ko indi ko ci sa baay sa baay indi ko ci yow wala bokk fam jaar ba agsi ci yow mi ngi jóge ci Seydi Hadji anhu kon lu mel noonu bu fekkente ni majaas nga ci jublu majaas bi jubul bu dee xaqiqa nga ci jublu xaqiqa bi ba tey jubul kon euh, bu fekkente ni maanaa mi lañ ci jublu ni nga jublu ci ni tiwaawan kenn du sama kilifa ni ko bax bi dafa leer lu mel nii nag amoon na ci tariqa tariqa bu ñu xam tariqa sunna boo xam ni am na ku ñu téewoon fonk ko yéegee ko yëkkati ko mais dafa dafa dem ba mujj diirante mbagg kilifa ba fiñ toll nii kenn mënu lu ko dar loola mu loolu mu woote woon loola mooy continuer ba faw di leen diir mbagg ci duñ ko mënal dara lu mel nii nag mooy lii irandaw di incarné léegi nag li ma dégg ñi koy jéem a soppee loolu du coppi gi de du xeex du xulo du taal kër du sabote du wax ju bon xam nga lan la yee nit ñi xamal leen ni آه، يرنتي صلى الله عليه وسلم كربم امون بيال نيكو قل لا اسالكم علي اجر الا المودل في القربى سي الحاج ما امنا كو تي طريقه شيخ احمد تيجان شريف رضي الله عنه تيد نك ا آه، ген خامني لي بو بو جالي بو جالي مانام رق رق بو ريلا تي نيبوت تي واول داخ نك آه، تي نيب ور نان سي تاخو لي سي الحاج ما سونون maanaam jihaat ko maanaam xañ boppam bànneexu àddina xañ boppam ay nelaw euh, sëgg ci téer yi wër réew yi loola kenn ku nekk ci ñi nga xam si ñoom la jaboot ñoom la jaboote àndoon ak seeni maam ñooñu kenn ku nekk war na am taxaw taxawaay bu jekk bu jub pour orma googu ci boppam euh, gën a sax ànd nag euh, orma di si laxaaj may du tax mu ñàkk orma jéem ko wàccee darajaam du tax mu wàcc du tax mu sippi ko ci daraja mais ci dégg ak loraange ka nga xam ne si mooy mooy mooy woote ci loola musiba boobu ñu ko yéene kenn te loolu nag eh, buñ ci waxul mi ngi gën a mi ngi dana law ndax man bu yàggul li may wax sëriñ Cheikh bu sëñ Abdul Amin seede na ma ci sëñ Moustapha bu sëñ Abdul Amin seede na ma ci am na benn waay boo xam dañuy waxtaan ba mu xamal ma ni moom sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ko joxoon tariqa bi waaye gannaaw gi ci el cheikh la yeeslu el cheikh moo ko yeesal ba def ko muqaddam jiital ko ci yoon ci ci ci yoonu bi ba ma ko dégg damaa tiit ma ne ko daal li ma lay yëgal ci li gën a gàtt mooy fii may waxe ak yow la la la la sëñ Abdou joxoon moom nekkatul ci yow te liñ la joxaat du dara. joxaatuñ la jara dara te ñàkk nga la woon ci la la la jox sëñ Abdou joxoon maa ngi lay laaye biir nag guddik tey gii xaw foo nekk mais guddik tey bul tëdd ci lal te jokkoo ak sëriñ Moustapha mu joxaat la werd tariqa tijaan yi lu dul loolu fii nga toll nii ko ab taalibe bi ci ma dem ba guddi mënatuma ko muñ ma seet seet numéro seen mustafa awma ko ma woo sëriñ Cheikh Al nettali ko ma ne ko fii ma comme jot naa la téléphone damaa bëgg diw fii may waxi yow nga woo ko téléphone mayaat ko weer salaatul faatihi ndax mu fanaanoo eh, tijaani bala muy dee ci guddi waaw ndax mu sëñ Moustapha Serigne Cheikh moo ko woo wax ak moom yeesalal ko jox ko tariqa bi ni ko nag su ma xëyee dinaa woo sëñ Moustapha mu xëy woo Serigne Moustapha wax ak moom woo waa ji ni ko woo naa sëñ Moustapha woo na ko ba tey jotu ko gannaaw gi laa jot sëñ Moustapha mun ma dafa nekkoon ca tool ya téléphone am mu naqaree jot ndax réseau bi ma nettali ko ko mu am ci moom maanaam ñeewant yërëm ko dugalal ko ci tarixa tijaan yu nii nag maanaam loolu loolu el cheikh woote bay fëkk ñenn ci njabootu Tiwaawan eh, Iran Ndaw lii muy wax nii ca yoon woowu la jëm da ngeen dégg ca kanam tuuti bu fekkente ni bàyyi ngeen lii jàll ñu ni daayira sëñ Moustapha daayira sëñ Maodo daayira ma sëñ Bay si Abdou daayira Iran Ndaw parce que di ko wootee ci biir Tiwaawan euh, lii lépp nag li ko indi mooy baat boo xam ni dafa war a jeex lañu lañ daan wax naan Tiwaawan santul si loolu ca mag ña la waroon Tiwaawan santul si ca mag ña moo doon Tiwaawan woote wuñ aw sant lañ waa woote mooy yàlla mais léegi nag comme dem nañ ba ñu gàttiñ xel bëgg koo firee ni Tiwaawan du ku sant si képp moo fa war a woote ci tarixa tijaan yi bu baax dañoo war a wax ni déedéet ci am na Tivaouane commune nag am na Tivaouane département kooku état bi état bi ci état la jub la jagoo mais nag buñ nee Tivaouane jublu ci xadra tijaan yi nag dañ naan si la sant Tivaouane boo xam ne xadra tijaan yi foog ñu d'accord ni si la sant bu dul loolu nag ngeen bàyyi seen njaboot gi ñu mel nii parce que tey jii wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim li yujaadilukum la alquran wax seytaane day dem di maanaam waxanteeg ay ñi nga xam ñoom la méngoon ngir indi ay difficulté indi ay jaxase tey it nag ngeen bàyyi xel almet gaña taaloon tiwaawan taale woon tiwaawan almet googaa ngi ci seeni njaboot al gi mi ngi ci njabootu ña taaloon tiwa ña taaloon tiwaawan almet ko taale woon almet gaa ngi ci seeni njaboot te seytaane ma nga xam ne si moo xam boon seytaane ba léegi mi ngi fi moo tax ma ngi bu njëkk boo daa wax naan la defal ndànk dund kon ñooñu bu ñu demee seytaane ma leen xiiroon ca goo ko jaxasee goo ko yàq ba léegi seen njaboot a ngi fi ci seytaane ñu fi ànd ak ñoom kayit nag eh, ñu moytu maanaam sëriñ seet bàyyi xel bàyyi xel ni la wala fii nii eh, jën da doon xuloog mbëtt ba ñuy sànnante ay taraaj daa xuloog mbët ba ñuy sànnante ay taraaj ñu ni kon day deru bar du fa set parce que mbët demul demul géej jën demul jéeri kon bar mi nga xam si mooy dem ci géej di dem jéeri kon deram du set ci xuloo mbëtt ak jën maas gu mel nii nag mooy ñooy indi ay jaxase parce que dégg ngeen ba Covid bi commencé baatu gaaruwaale baat boo dégg mu wax ci Covid bi rek sa xel dana dem ci sëñ Babacar Mansour kooku moom du ngeen dégg. maanaam ay ay baatu gaaruwaale ak garmbaasu goo xam ne sii buñ ñëwee sëñ Babacar Sy Mansour def wax na nangam mu indi leneen dendali fa ba looloo indi sax looloo indi euh, bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mbas mu mel nii bu amee toog leen seen kër ki toog sa kër boo bu yàlla def deewoo ca am nga tuyaabal ku dee ci jihaat sëñ euh, Tiwaawan jàppee ko ni kon nag lañ toog ci kër yi ba dem ci jàkka yi jàkk yi kenn du ko bàyyi noonu muy ngafal dañ koy tëj parce que parce que julli si wuñ euh, maanaam Touba gis ni nañ bàyyi ñu julli jàkk ci jàkk yi ba pare nañ respecté geste barrière ba nga xam ni wàllante du am parce que kenn ku ne kii moom gis na ni nañ nañ respecté geste barrière yi ba wàllante du am kii nag balañ cay àgg nañu nañu nañu toog ba ñuy julli yi kenn ku nekk yaa ngi ci sa déggin woo xam déggin wu jub mais da ngeen dégg mu ni daaw rek dégg ngeen mu ni sëñ Muntaxa moom mooy l'homme de l'année parce que moom rek moo tëjul jàkkaan est-ce que loolu yéen boo ngeen ko déggee da ngeen ko mën a déggee waxin bu rafet waaye lam ci jublu woon amu ko ca parce que nag euh, Touba du ñu ay cuune wala ñu ay gàtt xel yoo xam ni boo bokkee fa bokk bëgg leen a jaxasee sa fa bokk ñu daal la koy nangul bi waxee loolu murit yi dañuy est-ce que parce que teg wax nga sëñ Muntaxa loo xam ne si aw tagg la dañ naan yeeyoo na ko dañ naan yeeyoo na ko waaye nag lam jàppoon nii moom la ci moom la ko mu yi dégg ni Iran kat mi ngi nii léegi xam ngeen ni Sëñ Tuubaa mooy dëgg parce que fam nekkoon sax bàyyi na leen déedéet déggim boobu amuñu ko ñu xam ni nag euh, du nekk mukk baru Tiwaawan ak tiw Tuubaa du nekk bartim ci kër Sidi Hadji Malick waaw parce que loolu mag ñi bàyyi wuju loolu te am na loo xam ni taalibe war nañ koo moytu sëriñ si war nañ koo moytu taalibe yi war nañoo moytu kenn ku ne ñu dem ñi la yeesalal ma yaay sama sëriñ yow laa gëm yow yaa am fit wi yow yaa ñeme man day sëñ Maodo moo mayoon werd waaye man yaa ma doy man Tiwaawan santul si yàlla la sant te man xooluma aw sant yooye ca mag ña la woon Tiwaawan si la sant Tiwaawan bi nga xam mooy xadra tijaaniya si la sant Euh, sëñ Babacar Si radiallahu anhu dafa am benn waay bu ñëw ci moom ni ko diw de sëñ bi jaaxal nañu maanaam ni mu wàññikoo ci wàllu yàlla ak ci wàllu àddina ak ni meloon boo gisee da nga koy sax yërëm ak ni meloon sëñ bi lii kii lan la sëñ Babacar Si ni ko kii de li ko dal dafa jëloon werd ci sëñ Abdul Hamid Kan ba pare dem yeesluwaat ci diw loolaa ka topp kon boy yeslu da ngay yeeslu minal adna ila al a'la ki la joxon wert ki ngay yeslu ci mom na ëpp na superior ki nga xam ci mo la joxon wert waaw mais nak euh man manam seigne Abdou Aziz si euh mu mag ma dabax bi mu genné adina dafa am ben way bo xamni ni dafa dem ci seigne mawdou ñu koy dal yow ya fi nek yow yaay Sidi Hadji Malick yow yaay sëñ Abdou yaay kii yow yaa ma doy gis naa fi ñëpp waaye yaa ma doy yeesalal ma dem ci sëñ Cheikh bu sëñ Abdou sëñ wax ko loolu dem ci sëñ Abdou Al wax ko loolu fekk yóor na fu bare ba mu dëddee kam àndaloon daan ni sëñ Abdou kii de lii mu la wax nii dem naa ci diw fekk mu wax ko loolu ànd nañ ci diw wax ko ànd nañ wax ko loolu te nii mu la waxee noonu la ko waxee ñooña sëñ Abdou ni ko gënuma xam kii ak ku mel na moom kooku moo tax yu mel noonu fokk dañ ci war a bàyyi xel man mii bi sëñ Abbas àddina góor gi ma jëkk a tàllal loxo ni may yow yaay sama sëriñ ci yow laay yeesu gis naa fi ñëpp waaye yaa ma doy jox ma loxo ni ma yeesalal ma ba mu ci man dem na ci kenn ci rakki sëñ Abbas yi ni ko sëñ Abbas day dafa doon mag rek mu dafa nekkoon mag ma dem ci moom gannaaw jóge na fi nag man yaa ma doy déw ma ci kenn yaay sama sëriñ yaa ma yeesalal te gannaaw gi toog naa ci mbooloo kenn ci njabootu sëriñ Abbas maa ngi toog mu ni diw lay njabootum gépp gannaaw sëriñ Abbas ci mën la leen indi mën naa leen yeesalal maa leen may werta yu mel noonu nag mooy njaxas yi nga xam si moom mooy am ci kër yi parce que parce que euh, man dama dégg dama ni woon lu mel nii duma ci wax gannaaw gi ne dégg naa sëñ Moustapha di wax naan Ibrahima Ndaw man xaw ma ko Ibrahima Ndaw gannaaw gi ñu ne mooy Ira Ndaw lañ ci jublu mais bu fekkente ni euh, lii la kenn ku nekk war na cee bàyyi xel kon maa ngi woo njabooti ñi nga xam ne si ñoom la Sidi Hadj May ànd ak seeni maam maa ngi leen di woo am na loo xam ne ku ko bëgg indi ci Tiwaawan ñoom ñoo war a taxaw du lu ñuy xeex du lu ñuy taal ay kër du lu mais nag ka nga xam ne si da ngeen koo toppoon ngir càllalaam ci Sidi Hadj Malick bu demee ba woote lu wuuteeg càllal ak Sidi Hadj kooku nag war ngeen am seen fayda yi taxaw ndax la ma leen waxaat ngeen bàyyi xel almet ga ña taaloon tiwaawan taale woon tiwaawan almet goo ngaa ngi ci loxol seen i jaboot ngeen def attention bu baax a baax a baax ah ñun de li ñu mag ñi jàngal li ma daan dégg ci mag ñi sëñ Abbas da daan wax ni euh, ñooñu su imam sukri tuddu ci kasul hijab di wax tuddu tuddu ñi nga xam ñoo àndoon ak eh, seen Ahmad yane Chérif tuddu kenn ku nekk ñu tudd manaqibam kenn ku nekk ñu tudd ay mayam kenn ku nekk ñu tuddu mbaaxam seigne Abbas def dafa ni ñi day kenn ku nekk liñ wax ci yow na nga meloon ci sa jamono boko xam xoolal si xayma ni mel ci jamono jarul dem ci hijab كنت تقول لك كيف حجاب لك بو بغي خام نمال خول ني سيد حاج مال مال تي ديمون واي لولا رير تي ني سيد حاج مال مال تي ديمون نب خول كو من كو جان تي حجاب موتاخ بام كاي جان تي ولا فال با مسك ختام هؤلاء الرجال ني تخيب فرائد الليالي غيس نغي دا فلين ليم ني كان موي سين مسك ختام من الشيخ الشيوخي سيرنيو بغاني في moo siiwee topp sunna mooy ko góor ñi naw moo di kaleeral kenn du weddi Sénégal feesal ko ak xam-xam bu mag ak riyaal gox boo fi dem ci senegaal daa gis fa gaayam ya ñoo taxaw ci diine raw fa mooy doom maam Ousmane ju siiw ja maaliko man xajja fab fa wépp yow indaale ko a ngi ànd seen portail Baol Média nekk ci Mbàkke Bawal